salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax ma ñëwal leen ci injustice bi nekk suñu force de défense et de sécurité bi corruption bi fi nekk ak ku ma ndey ku ma am ndey ku ma amul ndey bi fi nekk ci suñu force de défense et de sécurité ak la police nationale ak yépp tey foo ñu wax ci gars yi wax wax aussi seen droit yi leen di xañ toujours ak ñiy salfaañee seen i droit nañ ci ñëw gars yi ñu commencé dañuy waxtaan entre ñun

directeur de la police nationale Mam Seydoundour, je dama bëgg mu xam euh, am na benn lundi marché HLM policiers yi arrêté nañu auto. oto photo yooyu xam ngeen duma ko jamais de la vie image yooyu le le ministre de l'intérieur le général Jean-Baptiste je duma ko pas directeur police bi jamais de la vie te ñu may wax dinañ xam seen bopp oto yow chef bi commandé woon ci sa auto, nga Elle élément arrêté ben auto. dafa def infraction vitre kanam yi ñoo am tente mu ni ko vitre yi dañ ko tente da nga war a fay amende ok fooy fayee ñu ni ko oto bi ngi na la ci chef bi fële ci oto bi mu dem dox ci chef bi benn lundi la marché aslem démb la woon lundi lundi bi passé bële lundi bële passé bële ba mu ñëwee ci yow nga ne ko six mille wala trois mille mu ne la trois mille de moo gën a yomb ci man nga yor machine bi ni machine nga tey ni ko 6000 nga fay ci machine bala 3000 mu la 3000 la gëna yom ci man erreur bi nga def mu génné 5000 jox la jooni la la jox ma ngi ak sa numéro auto immatriculation beeg yépp image ma ngi ak mom mais yaakaar nga li na ko jox Jean Baptiste Tine wala kenn jamais de la vie mais dama wax nga dégg xam di nga xam kan lay wax parce que man ak yena fat je vais pas vous trahir maintenant wax nak sénégalais yi moom njaawte bu am naa ko teg si la table ba mu la joxee 5000 da ngaa ibbi box xam nga boo toogee oto am na benn box buy ne ci kanam ba nga ko xëccee ci côté bi nii ba nga ko xëccee la fa nekk ci biir kenn mënu ko compter nga jox ko 2000 mu jox la 5000 yi dem. agent yi ñoom ñu ngi taxaw fee ndeysaan élèves yi dama leen yërëm léegi xaalis boobu nga encaissé yëpp foo koy yóbbu après wala comme d'habitude li commissaire central yee commissaire yi naan ñaata nga indi yaay ak monté lo indi tay lo indi tay lo indi tay ngeen jël séddoo dam sen poos yobbu machine bi am benen police bu nek jàmm gën bu mbour moto bu mu japp du mom rek ha ah, bari na day japp moto dagal 6000 francs te du la jox reçu 6000 dal yow da ngay fay dal dem te boy fay yow ni cash ngay fay dem du machine du dara tu pars ana xaalis ba corruption bi mi ngi ci tali bi 1000 francs gis na ko fay sama kanam ñu may naan yow ñi ngay défendre matin midi soir xoolal tant que arrêté wu leen lu mat ay cinq cent et quelques oto yu valable ñiy def infraction ngeen arrêté leen dawatuñu oto yëpp dinañ dem di régler seen këyit ba mu mat sëkk du ngeen jàppati kenn ci ay infraction bàyyi 1000 francs 2000 francs day am tant que yéen homme de tenue yéen a ngi jël 2000 ak 3000 ak 4000 yi désordre bi yéen a koy indi corruption bi yéen a koy indi parce que yéen a koy encouragé corruption bi. ku ne mën na ni waaye aw ma kayit waaye waaye garaawul benn deux mille ngay joxe cinq mille francs rek ñu bàyyi la te looloo am du ma joxe sa photo sa vidéo jamais te du ma wax kan la jamais loolu bu ko xalaat man man maa la ko wax tëddal nelaw mais xamal li ngay def on est tous au courant Jean-Baptiste Tine il a des éléments partout yuy patrouiller te xamu leen ko lu ngeen def lu ngeen yéen am na ñoo xamante ne sax da ngeen jël ñoom ñoo leen jox xaalis nii dem seen yoon xool leen yërëm leen te xam leen ni yéen il travaille avec le ministre de l'intérieur xamoo ko leen ko sax moytu leen corruption bi ngeen nekkee yépp xam nañ ko bàyyi leen yooyu bàyyi leen yooyu baaxul bu leen yàq seen der yéenay encouragé oto chauffeur yi du am ay oto yu baax du nangu am ay këyit yu baax parce que lii la polisu jàmm gën bu mbuur moom nan def attention ay seen carburant bi cinq mille francs ngay joxe oto xënt goo xamante ni ci carburant waxal le directeur maam Seydou Ndoye oto yi baaxul mu envoyé leen ay oto yu baax jox leen xaalisu carburant bu doy wala ñu ngi leen koy jox yaa wàññi je ne sais

xaalis bu amul il faut que kilifa ci kaw niw ma ay commandité ñuy commandé Kanawa ak ki yor xaalis bi wax de tria triande ak mafia gi magga fa la né il faut kilifa gu magga di def communiqué secrétaire général wala adjoint def communiqué wax ni xaar len patiente len li ak li ak li gaay yépp ay dal xaar parce qu'ils ont confiance à leur supérieur man loolu xamna ko mais bu dee ñeexee-jeexee ñi ne ci camp yi ñu ndaw ñi yor xaalis bi di jaar ci ñomay wax duñ leen gëm parce dañ leen a door ka ñëw ci passeport diplomatique yi fi amoon Mamadou Lamine Ba service à la présidence Et Assane John, gendarme en service au niveau du bureau des passeports diplomatiques du ministère des affaires étrangères dañ leen a condamné woon affaire passeport un an ferme Je le général Martin Fay, au commandement de la gendarmerie na avons ci dossier un an ferme devons appeler appel cour suprême cour suprême dëggal daan bi kenn ce qui? Mamadou Lamine Ba. man nga impôt et domaine bu Rufisque di liggéey Assane Dione ñu envoyé ko mission Gambie dañuy laaj ñii danoo am ndey ak baay ci ci gendarmerie moo tax ñu téye leen fa ana ki ñuy condamné 6 mois dàq leen ñu ñu condamné 3 mois dàq leen 2 mois dàq leen ñoo xamante ne condamné leen sax ñu dàq leen def leen ngeen jëli ñëpp bu ngeen bëggee bàyyi ñuy condamné un an ferme ngeen bàyyi leen ñuy liggéey di leen jox ay mission jëli leen ñi ngeen dàq injustice justice ngeen wax yéen justice. injustice bi bu ngeen ko bàyyee mu jall le général Martin Fay au commandement de la gendarmerie dossier bi na ci wax su bàyyee rek na dem xol ni général Moussa Fall dàqoon ñep ci coobare bakaram mu jël ñep indi wat on a besoin des éléments wat non suñu gendarmerie rek armée bi am effectif bu dëgër géré ñu suñu deug wa garsi ñi garde frontière Mali côté yoy ñom nénon seen xol sedd na ndax condition yu bari changer na alhamdullah lool rek lañ ci bëgg mais ñoom amuñu prime ñooy garde frontière lépp lu jëm ci drogue mafia buy jàll dañuy reyante ba sonn pour du fi dugg mais amuñu ay prime am aussi beneen corps que ñeneen ñun ñaan octis mooy office central de répression du trafic illicite de stupéfiants ñoom it nee amuñu prime lépp lu yaay drogue ñoo koy jàpp Sénégal jàppal baal mais amuñu prime ñoom amuñu prime donc ñom bu daan dugg ci jaaru commissaire Kayta le vendeur le trafiquant de drogue bi yuxu yuuxu nii naan Sonko rarararat kon mom lolo taxoon mu doon wut ay boyam ñukay jaal ay drogue ak yoy mo leen jangal banditisme ñoo ñu da nga leen fay prime bu deuguer kecc ñukay koy lu ngeen arrêté ñu ngeen japp ñu ngeen japp vous avez des ay bénéfice ay prime ñoom ñu ñew ci ben parti RC AR RCA 3 jotuñu seen xaalisu vingt cinq mille tabaski ba léegi bii le général des forces armées joxe woon ba léegi am na ñu ci ko loolu dama bëgg général bi xam ko xaalisam ba mu joxee am na ñu ko naj ba léegi voilà te benn partie RCA 3 n'ont pas reçu les vingt cinq mille de la tabaski police boo ko yàgg fi woon cent mille yi ñu yokkoon seen i salaire nga daan dagg vingt cinq mille boobu ba léegi ba mai mois de mais nga door a commencé matal cent mille yi vingt cinq mille de pendant deux ans policier bu ne ba léegi demande national la ñu ngi laaj seen xaalis fan la ne ak fan la dugg ñu ngi laaj Mamadou Ndoye bii mu def ci enquête seen xaalis dañ kaa soxla waaye <laughs> le mal est profond gars yi le mal profond affaire bi du ay caaxaan le mal est profond force spéciale yi nekk Thiès nga xamante ni. 41 ñoo nekk Thiès 47 Kaolack 38 Dakar ci Ousmane Fall dem mission le ministre de l'intérieur encore di le directeur de la police mu jël place ak 8 forces spéciales ñu affecté woon. bu confiance ngeen xool ñoom vrai ba ni am confiance ngeen indiwaat leen ñu ñu place loolu ñu ngi leen koy ñaan ñi ne BRT tubaab bi chaque mois mu fay xaalis bu dul jeex bu dul jeex ñu bañ leen fay yéen seen gi dégg naa depuis novembre xaw ma décembre bi fi Macky Sall ba léegi laaloo leen seen xaalis seen prime gisoo leen ko ñi ngi ñaan aussi maam Seydou Ndoye jug ci yooyu yëpp